sur la chaîne des leaders Senbuzz TV mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax ci seen choix renouvelé sur la chaîne des leaders baaxoon nañu képp koo xam ne rek leader la ngeen ràññee taxawaayam ak ci domaine bu mënti nekk di ci yëngu en tout cas képp koo xam ne rek am ngeen choix ci moom sénégalais yi am respect également à travers li nga xam ne mu ngi koy def ci moom ñuy am moom jotaay la danseuse nationale laa ku ñu dootul seen teewaay fii ci Amazone boutique. di leen ñaanal jàmm di leen dalal jàmm di nuyu mbokku téléspectateurs yi nuyu seetaan ak mm. internet yi. pratiquement gis nañu bët bi sénégalais yi moment boobu seen génération doon xoolee feccikat yi yenn euh, je dis pas bad buzz mais en tout cas bari ay ñaawteef yoo xam ne certainement ñu bëree bari ci askan wi moom lañ doon am ci yéen nan doon dundee loolu aussi d'autant plus que nga nekkoon xele. ah mais sant yàlla comme man moom a Euh, yàlla ngi ñu ciy suturaal ndax nit moom da ngay rëcc rek doo ne man mënuma woon loolu leen daloon noonu dal ma franchement dama rëcc rek waaw yàlla mi ngi ma ciy suturaal te ba léegi sénégalais yi ngi may bëgg ñu may apprécier. Mm-hmm. donc moo tax sama bopp rek laa mën a juger. Mm-hmm. Mm-hmm. alors bu ñu waxtaanee fecc est-ce que souvent doon na la arrivé nga tollu moment boo xam ni da nga naan vraiment jaratul may sori ci fecc parce que déception yi bari na wala métit yi bari wala amour bi nga amoon rek moo la certainement moo waaw amour bi rek moom accompagné woon ndax nit ki boo amee amour euh, am don dem jàngiwaat am ay maître chorégraphe yoo xam ne ne ñoo la formé dëgg yàlla donc euh, loo gis am na amateur loo gis am na professionnel mm-hmm. man nag foofu rek laa ko jàppoon ndax métier moom même bi ngay def nii wala bi keneen di def mm-hmm. am na amateur am na professionnel mm-hmm. alors ce groupe de danse nan la tuddoon exactement les Amazones de Dakar. bu les Amazones de Dakar. alors après ñu toog benn instant premier euh, groupe de danse euh, de filles au Sénégal. d'accord man maay première bi fi njëkk créé groupe de danse. Mhm. au Sénégal euh, après lépp xet de jëppal ñu ngi fi woon compagnie la woon. Mhm. ñun nag ñoo fi nekkoon. moment boobu Papa Ndiaye. Mhm. Thiou daan tamit def individuel. daan ànd ak Youssou Ndour mu difficile woon quand même moment bi ngay évoluer si li nga xam mooy danse vraiment parce que bariwul woon ay xel jigéen ñi parents yi aussi amuñu woon choix ni confiance mhm. euh, pour que seen doom def loolu mhm. bu ma la doon laaj lan mooy gàllankoor yi nga xamee ni moment boobu bi ngay gën a nekk xale en tout cas euh, gis nañ la ba ngay njëkk feeñ moom nga daan gën di dund en tant que jeune fille boo xam ne aussi yaa ngi évoluer ci milieu boo xam ne aussi évident a marqué ci ay gàllankoor wala a marqué mooy xam nga am naa sama magu pap boo xam ne moom euh, bëggul woon ma def danse. Hmm. bëggul woon benn yoon ma def dance moom saa yi ma demandé ci spectacle bu ma ñëwee daf may dóor ba ma sonn kooku moom wax dëgg yàlla bokk na sama carrière loo xam ne tey jii euh, su ma su ma su ma su ma toogee di ko xalaat sax daf may def ay reetaan. Hmm. ndax damay jóge rek benn jour euh, u de da def benn spectacle foofu noonu Medina mooy concert yu mag yi Youssou di def. Hmm. mooy def première partie bi léegi partie morceau Néné Chéri bi Néné Chéri bi jot. yu de dem fa di way mu ne kon parti eh, Néné Chéri man man maa koy jël ma ma fa demee yéeg ci podium ba way Néné Chéri ba yegg si waaye gis nga ma yegg si si buntu kër gi mhm. non keroog laa bàyyi <laughs> yéeg ay podium naan damay aw nit ak damay def ay mhm. affaire non loolu moom du ma ko sax nettali si kii bi moom. non vas-y may ñu si tuuti nan la demee woon exactement. <laughs> non <laughs> ah c'était quoi daf la dóoroon. dafa ah. dafa certainement wala. non dama depuis loolu daal man laa ragal sax tudd nee na chéri daal. nañ ko yemale foofu rek ndax tiktok bi xale yi da ngay sa dëgg. ñu ah, dem indi eh, leneen dë dëpp ni yëf ya. Ah. ko foofu. mais ay porteur de voix ngeen aussi en dehors de li ngeen di influencer xale yi ci lu baax évidemment aussi so xale yi soxla nañu. Euh, di xam seen i jaar-jaar aussi di xam également franchement par rapport ak évolution ak li nga xamoon ni doon ngeen ko dund aussi ñëpp xam nañu mënul yomb nga nekk jeune fille di évoluer. ci milieu danse bi quand certainement tamit ñuy waxtaan di hmm. waxtaan ak xale yi ku ci nekk xool li nga xam ne ne ñun moom lañu ñu moytu woon hmm. ci aar bi ñun ñu moytu ko li nga xam ne ne tey jii hmm. moom la ñu defoon tamit muy lu rafet ñu ñoom ñu ñu yokk ko donc tey foofu lañ toll léegi parce que gis naa ne bërki démb ci programme yi nga xam ne ne moo doon raxas bi ñu def ne Médina <laughs> war nañu xam ne ne ah, ndaanaan yi nga xam ne ne ñoo leen fi jiitu bàyyiwuñ de donc waaye wu ñu de parce que ni ñu def am nañu condition physique. Mhm. te feeling beeg charme bi mu ngi fi. te mën nañu yëngal public. Mhm. fu ñu dugg public yëngu gars yi ambiance xol yi neex. Mhm, ndax euh, danse du question da ngay dugg di fas sa kanam wala da ngay souriant da ngay xàppi da ngay firi euh, maanaam sexy bi ba mu ëpp dëgg la. mais léegi bu vulgaire itam ba mu ëpp kilifa du la seetaan. waaw war ngaa mën a fekk ay ndaanaan yu toog. nga sol sol lu jot lu am classe. yëngal seen ba ambiance te sa sa sa sa dara du génn. Mhm. waaw ndax bu njëkkaan da nga daan gis même bu dee da ngay teg ay affaire yooyu teg sa ndigg da ngay seet yu aare yu aare nga teg ko mais léegi bu dee yi nga xam ne tamit moom la ñuy def ci biir néeg yi. Mhm. ñu koy génne ci biir public bi. loolu day agressif. d'accord ñun tamit amoon nañ différence boo xam ne ne. ñu ngi daan sóoraale loolu. gis nga ni aussi loolu gàllankoor la mën a nekk certainement wala mm-hmm. benn image boo xam ni. Euh, par rapport ak li ñu bare bare aussi di laajte. Mm-hmm. gis ni franchement c'est difficile bu ñuy wax ñu mel ni Oumou Sow bokkuñu ci. Mm-hmm. mais culturellement lan nga gis ni mooy image bi ak sénégalais yi de manière générale di gis ci ci ñi nga xam ni ñooy fecckat yu jigéen ñi entre guillemets ba ñenn ñu bare bari euh, gis-gis bu négatif la ñuy faral di am ci ñoom lan nga gis ni moo leen manqué entre guillemets. waa li leen manqué mooy conseil euh, nit sa xel rek warul doy métier booy def booy jaay sax war nga ci ut conseil léegi jamono bi buzz bi dafa ëpp doole waaw euh, kii bi euh, maanaam li nga xam ne ne liggéey bi nga xam ne ko war a teg ci yoon waaw professionnalisme bi daal mm. maanaam buzz bi da koo ëpp doole donc buzz léegi nag man bëgguma ko buzz day nekk loo xam ne tam nga wax ko loo xam lu rigolo wala lu loo xam ne day leneen lay doon waaw mais bës bu ko nit di am euh, waroo ko am ci ci ci génne sa sa cër mm-hmm. wara nga am ko si def loo xam ne ne tey mm-hmm. soo ko defee rek da naan kenn xamuma su ma wanee lii tey wala ma def lii wala ma am loo xam ne na tey dinaa ko génne euh, dina tax ñu xam ma loolu buñ ci seetul seen doom ëllëg mm-hmm. yooyu mën na leen yàqal sax kilifa bu mag ci réew mi bëggoon leen takk dootu leen takk c'est waaw loolu am na solo. d'accord waaw carrière moom boo koy def. Hmm. na rafet. image buñ ko demaatee xool hmm. Google. Hmm. demaat ci ginnaaw. xool carrière bi na rafet. d'accord ndok ndok du ñàkk si doomu aadama bu amee man dama la koy nangul mais comme génération bu ndaw bi ñi ñu jël ay baayu transparent boo feccee sa yëpp feeñ. man damay ruus damay am sa damay stressé wu. waaw il faut ñu changer seen comportement. waaw mais nga nekk ci seen. mel ni ku nekk ak sa àll sa jëkkër. Mm. donc yëfu sexy yooyu ñuy def noonu dëgg-dëgg am na feneen fu mu jekkoon fu dul sax ci public. ni daan nga fecc ba mu rafet. Mm. déplacé wu def charme def ay affaire daaneel kii seetaan mu kontaan ci xolam. dem këram naan noo kii dama ko bëgg man sama secret ci sénégalais yu lenn la rek. Mm. maanaam su ma nekkee seen wala fu ma nekk sama feeling moom laay dugal fexe dugal ci seen i biir xol. feeling boobu nag moo leen di ba ci leen may bëggee. ok mais feeling. du mhm. question wane sa lii wala wane sa lee wala di fecc di sol baabu oyof donc euh, c' est pas bien. wala nekk ci seen mel ni yow yaa ngi nekk ak sa jëkkër wala sa kii. waaw mhm. ah, nit di la gis di xool yeneen image du doon yow cachet bi ñu lay fay fay dootu la doyati lay doy mooy ci ginnaaw cachet ba ku lay woo téléphone wala ku lay ku lay proposé. Mhm. il faut ñu bàyyi loolu. waaw parce que boo jëlee rek sa àddina mhm. ne damay dama ko teg ci métier bi may def mhm. pour tekki ci mhm. mais pas ci anam yoonu euh, par la grande porte mais si boo jaaree si si petite porte bi euh, bu boobaa sa image dootul rafet dootul rafet sénégalais yi nekk nañu ñu mat ñoo xam ne ñoom benn yoon la ñuy jàpp waaye bu ñu xasee ba bàyyi ala kuli aal mënoo fexe ba ñu ba nga defate lu leen saf waaw kon nag nañuy bàyyi xel ci public bi ñuy seetaan bàyyi xel ñi nga xam ne ne ay kilifa diine lañ ak aada te seen doom soppuñu mm. ñuy référence ci ñoom te lu ñu def ñoom ñu roy ñu loolu rek laa leen di digal mm. xam ne lépp loo xam ne ne def ko ko pour wane sa cër wa par accident d'accord naa mm. mais loo xam ne yaa ko tey wala nga def ba pare ñëw ci public bi defaat maa tey ah loolu franchement dinaa am kersa sax di dajeeg yow sax ci nuyanteeg yow. mais bu dalee nit mu nekk ndok-ndok. Mhm. man maa ngi ñaan yàlla sénégalais yi baal baal baal ki mu dal. parce que du du tayee fam kenn du ko topp ba mu sës tamit ndax mënoon na ma dal mënoon na dal keneen bu ma la doon laaj aussi balaa ñuy ñëw ci li nga xam ne mooy histoire vécue bi nga xam ne ñu baree bari ci askan wi mhm. dañ koy soxla ci yéen ci yi mhm. ban clip nga mës a moom nga mës a tourné ba pare vraiment nga am si satisfaction aussi par rapport ak tournage bi nii message wala par rapport ak retour doon am ci askan wi ban clip moo la gën a marqué ci sama boss wala bu ma defal keneen bien sûr sa carrière en tant que danseuse hmm. clip bu buur buur bu Thione Seck hmm. buur daali marqué na ma euh, clip bu Mansané saareel marqué na ma ndax après xale yëpp dañ doon toppandoo même jupe yi ñu soloon et donc euh, marqué na ma euh, morceau fly to fly hmm. marqué na ma morceau kanel sama dëkku papa hmm. marqué na ma taal moto bi marqué na ma waaw ah, te marqué na sénégalais yi. marqué na sénégalais yi daal moto bi ñëw ndax gis naa xale yi di ko tiktok ak def ay yëf. tiktok moom xam naa ne samay soppe la ñu. alors lan <laughs> lan nga mës a dund loo xam ne dem nga tourné ak benn artiste nga dem dund fa loo xam ne vraiment doonul woon satisfaction ci yow métit la wala gàllankoor wala. Mhm. entre guillemets loo xam ne doo ko fàtte. ah mais mais euh, ñun ñun ñun euh, loolu lu muy dal artistes yi bëri na. ban moo la ci gën a marqué. des fois mun nga dem tourné. Mhm. Euh, ñu joué ba pare promoteur ba ñëw ne la dafa perte. li ngay obligé def mooy comprendre ko jëlaat sa avion ñibbi si jàmm waaye man dama am sama secret ndax su may dem damay yóbbaale samay leer koor jaay samay diw ndax man diw bi maa ngi ci 15 ans lépp luy tache noire lépp luy bouton yaram bu set macha allah ci laay yëngu ndax samay voyager léegi sax pour loolu. Hmm. su ma demee jaay suñ ma joxee ma jëndaat fa ay bagages ñëw jaay Sénégal. Hmm. man moo tax man daanu ma woon am problème promoteur. waaye li mu daan dal artistes yi bëri na mais Papa laa ci bëggoon. d'accord ndax moom day yéeg def première partie. Hmm. balaa moo wàcc pour def deuxième partie ne la sama xaalis. loolu la daan naa ni war a roy. Hmm. ndax artiste dafa war a jot reliquat am avant muy eggali soirée. Hmm. ndax tey soo soo ko joxul reliquat am ne mu ne du eggali soirée ba waa soirée bi dal sa kaw. kooku moo amoon stratégie. alors dégg naa say stratégie aussi moo doonoon amoo woon confiance ci benn artiste bu dul Pape Thion ndax ñu bëree bari ci ñoom. Mhm. jëflante nga ak ñoom te satisfaction amu ci. donte ni yaa ngi nëbb question bi naan sama papa la sama xarit la mais en réalité for nañ ci wewu nag loolu moo doon sa problème ak artistes yu bëree bëri. non Pape Thion nekk na koo xam ne ne euh, wax dëgg yàlla lu mu la wax rek ci kàttanu yàlla dina ko def. Hmm. ba tax na moom dafa xamoon tamit li ko war dafa yërëmoon artiste boo xoolee. Euh, li mu def nii CEDEAO bi mu def nii woo El Hadj Keita woo artistes yu ndaw yi te CD yi bu ko jaayoon ku ci nekk yow yaay moom li sa œuvre. Hmm. nga xam ne ne moom dafa amoon yër man de ci artistes yu ndaw waaw léegi nag donc koo xam ne daal bu woyee ñu ne ndeysaan. Hmm. waaw man daal ay affaire donc confiance daal nga amoon ci moom pour ñu avancer moo taxoon daal. d'accord parce que dafa daan am émission télé yu mag. Hmm. yoo xam ne concurrence bi métti woon na Sénégal. des fois am luñ la wax ci télé. Walfadjri ataaya yi ñu daan def seen émission yi mhm. léegi su ma ci waree dem ñu xam ne dama war a tontu papa Thion dina ma woo ma maaki ne dina ma woo wax ma ay kàddu yoo xam ne ne su ma demee fa laay yem te dañ may seetaan alors conseil la woon de bu ma la doon laa laaj li nga xam ne mooy histoire kii ban histoire nga dund ci sa dund mhm. boo xam ni métti na la te doo ko fàtte moo la may courage aussi ba nga yegg si fi nga yegg si tey lan nga may wax wala lan ngay wax mbokk yi bàyyi xel la de li dox ah, boo dee ndaanaan boo dee artiste bu ndaw donc euh, ngay ànd ak ay leader ñaan nga yàlla tey jii ñu lay dégg fu sori mais bu fekkee génn nga ci leader nga nga bàyyeeku doot kenn du la déggati ci àddina hmm. mais boo génnee ci leader hmm. leader boobu def ci yow ay expérience yóbbu la partout dans le monde donc da koy remercier de passage muy Viviane ndax moom tax ma xam lépp loo xam ne ne ay dëkk la bitim réew partout yóbbu ma ñëkk ma yóbbu ma mu marqué mal trop. mais boo jógee ci leader da nga war a tëggal sa bopp. Hmm. former man les Amazones woo ci ay ay colère ñu ñëw ñoom ay dada ñoom léegi et ñu àndandoo. di liggéey hmm. ñu dem ba mu yàgg ñu dem ak ak ñoom ndikku ñoom day jaw indo fanjaay indo hmm. ainsi de suite ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne tey ñi ngi bitim réew Astou Faye et mu nekk band boo xam ne ne hmm. dañoo bëggante woon ànd ci suñu génération léegi Amazon nag daara la woon Amazon moo jur gazel jur les lions bu ay dada jur les signaar maanaam man sama groupe ah, formé na ñetti groupe de danse si ginnaaw parce que day wane culture bi mu ngi dox man ci leader laa nekkoon génne naa ci leader formé naa sama groupe ñoom it dañu bëgg a nekk leader. d'accord te dañ leen lan lan nga dund ci sa parcours benn loo xam ni mën nañ ko tuddee histoire vécue loo xam ni daal dund nga ko je dis pas ci sa parcours musical wala en tant que danseuse aussi. Mm-hmm. mais ci sa vie d'une manière générale. si si ban cadre. ci sa cadre vie rek loo xam ne dund nga ko ak nit mu métti la loo xam ni xëy na dund nga ko ak say waajur mu métti la loo xam nit def na la ko mu métti la. waaw xam nga aar bi ñu nekk dafa dafa bëri trahison. Mhm. aar bi ñu nekk dina am toujours de ay coups mais li ku ma waxoon rek ñu koy nuyu de passage. Mhm. da ngay altéeru rek. altéeru bi mooy da ngay nangoo muñ nangoo encaissé soo nanguwul muñ nangoo encaissé lu ñëw nga kaas chaque jour ngay détail bu yàggee li ngay yóotu doo ko jot man nag dama daan jéggale tey jëllale ndax taalibi Sëriñ Fallou laa lan nga dégg lu la gën a métti loo xam ne jëlle la nga ko non doo ko dégg d'accord mais maanaam maanaam des fois liñ naan sa évolution hmm. day jaaxal ñu bëri am na ñoo xam ne ne mënuñu supporter nit kuy avancer waaw nit kuy dellu ginnaaw neex na leen mais booy avancer te ñoom ñu jiitu la ci métier bi te avancer wuñu donc loolu daf leen di indil ay jalousie jalousie boobu nag mooy indi ku kuubaay mais ci génération bii ñu toll nag âge bi ñu am ni hmm. wax dëgg yàlla euh, képp koo xam ne rek amoon nga sax loolu daan ko joué ci sa xol hmm. wallaay léegi bàyyi nga lépp c'est clair ñëpp ñi ngi suudewu bokk ndey ak baay d'accord di mayante xaalis di waajal ay tour yu ñuy def hmm. chaque mois ñuy gisante bëggante ku ku am xew. alors foofu sax xam naa bala muy jeexal sax aussi aussi euh, sister Oumou moom yi nga xam ne leader la alors c' est mais loolu aussi duñu forcément dinañ ci parce que xaw na yéex quand même nga xam ne am na c' vrai que ñu nekk showbiz bi yëpp xam nañu ni bennoo évident wul woon et puis euh, daanaka yéex ngeen ko def aussi yéen feccikat yu mag yi xamee ni mhm. yéen doon évoluer je yow Ndeye Guèye ak Mbathio yeneen ak yeneen benn âge dem ba seen carrière jeex. ba nga xam ne daal léegi xale yi ci nan ngeen ngeen a ci internet bi. mais pas mais léegi ay léegi ay baal naa ak ay genre yooyu noonu ñoo fi nekk nag sista nga baal ma nag. mais mais yéen instant ba seen parcours jeex ba seen carrière jeex ngeen ñëw di créer ay xawma association danseuse aussi. Ah loolu tamit gars yi koy wax feebar faju dafa baax. d'accord gën ñuy dem. Hmm. ñu di leen ketal xam nga loolu amul solo. ci tey. Mm. Euh, feccikat bu fi feebar ñu lay ketal. wala mbër mbëri tamit dañ ko daan def mu metti leen. Gris doo gis nga ko léegi mooy président wu lutteur yi. Mm. kon am na loo xam ne ne li naan njàng du wees. waaye toog dajaloo ba xam ne ne Thione Seck dafa woy woy bu am solo. Mm. ne ne dama nekkoon ci benn yoon ma xam ne yoon bi euh, yoon bi nekkul yoon boo xam ne ne war na jaar yoon ma wàññeeku. jaajëfe suñu borom kon ñun tam dañ naan jaajëfe suñu borom. ndax toll woon nañ ci moment boo xam ne concurrence amoon na metti woon na lool kenn du ko wetti hmm. waaye booy jël âge am doom yu mag même bu dee benn doom sax ku ci nekk am nga ko hmm. wala ku amul it doom it am nga xelum léegi esprit de dépassement léegi ñun dañuy mayante xaalis c'est clair association des danseurs et hmm. chorégraphes mbalax du Sénégal alors balaa may jeexal xam naa faju moo ko tax a jóg c'est clair ku xewle ñu ñu xelp la li anglais di wax dooleel la ci suñu biir loo yëg ak loo yëgul def suñu enveloppe bu baax xool koo xam ne ne roxam jotul am ñu bett la guddi lay doon jox la ko ci sutura. ak yeneen ak yeneen yu ñu mënul wax ci télé. c'est man nag damaa bëgg képp kuy journaliste. Hmm. képp kuy nit boo xam ne ne yaa ngi ci millier bi wala foo mën di nekk. Hmm. te yor xol bu rafet na nga ñaanal lii mu sax mu dëgër.

xew ba def raxas ak fi jamono ji toll tamit sama jigéen. alhamdulilah rabbil alamin ginnaaw bi ma amee ay soppe ak ay nit yu baax ah yoo xam ne ne macha allah taxaw nañu ma yàgg leen lebal vingt ans ma leen di lebal musuma am xew ñoo ñooñu takku ba dëgër ñii indi nag ñii indi ay traiteur ñii ñëw teral ma ma boole ceeg ci sama liggéeyu bopp ndax macha allah boo yàggee liggéey yàgg a denc. ak samay nitu valeur yoo xam ne ne ñu ngi ci dëkk bi yoo xam ne ne macha allah samay soppe lañ bëgg ma yëg ne ne maye naa sama doom ci farata sunna si yàlla Muhammad mm-hmm. sama doom teral ma ci diggu diggu Sénégal yëpp mënoon na yàq boppam muy tox wala ñu koy gis ci yeneen yeneen i milliers mu yàq boppam may xëy di ko wëri fu nekk wala di dem ba 5 heures du matin di ñëw mel nu ko neex jël butéel bi wala def lu ko neex waaye deful loolu ñu jël ko fañ ko war a jëlee ay njëkkam jël ko yëkkati ko ñu indil ma ko ne ma sa doom kontaan nañ ci moom yàlla def ma def ma euh, maye jàkka rek defuma xew bu sama doom nag demee ba am doom war naa mën a xool sama koofar foor lu ma mën a am ak lu ma amul yëpp. Hmm. teral ko nit ku ne sa bopp sa bopp ngay teral. ba tax na mu ay bàjjenu valeur ci réew mi am ay ndey yoo xam ne ñii ñu ngi Dubaay ñii ñu ngi Chine ñii ñu ngi ci réew mi di faj buumu gàcce yi yàkkamti woon nag macha allah maa abi am bés am turandoo maa abi jama nga ca Paris yónnee. bàjjanam Adji Dia mi ngi fii nii euh, rëbës maamam Yacine Kane ñuy gërëm famille papam bu baax a baax waaye di gërëm ñi nga xam ne ni ay kóllëre lañu woon ci famille bi mooy ki nga xam ne ne mooy titin jum macha allah ki nga xam ne nag ah papam ku ko xam xam ne ni su lay gisee mi nga xam ne moo nekk euh, marché nekkoon marché HLM génn àdduna hmm. yor fa kanti nekk milliardaire ci réew mi moom mooy bàyyi titin jum macha allah yaayam bi nga xam ne ne mooy yaay Adja taxaw temm ne sëtam bii da koy teral. kon daal xew la ay millionnaire def ma ci cent francs ay millionnaire ñoo la ci ñoo la sekkoon. waaw ay millionnaire ñoo ma ci sekkoon ay borom daraja ay borom teraanga. Mhm. Adja ci am la solution ñëw ñëw teral doomam teral doomam. Mhm. ànd ak titin ñu ne deetawaay euh, ki nga xam ne Mariane Meen di ñëw maanaam ñoom na bu bàccil nitu valeur yëpp ñoom ki nga xam ne mooy Mami Diom Jador Khalifa Mbergane ñoom ñëpp ñëw mhm. takku ba dëgër. teral xale bii. Hmm. a ah, man saw damay sant rek xale bi moom mooy sa taw bu ma juumul. mooy sa leader mooy nijaayam monsieur Ahmed Tidiane ba Messi. Hmm. Messi ñëw defanteeg moom lu baax ak ñoom Seyna bu baax man xew mi defuma ci cent franc ñoom Fando yee ngi nii toog jàppale ko def togg añ yi ba mu neex. ñoom maam Bassine Thiam ñoom Jole. lan ngay sama génération. Hmm. ah ñoom day géey xale yu baax yooyu macha allah Mbacco Ndiaye nekk magale bi ñoom ñëpp ñëw defanteeg moom ah. alors lan ngay lan ngay tontu. ci ci ñi jàpp ni ci ñi jàpp ni. <laughs> Euh, ngay tontu ci ñi jàpp a exagéré da nga xaw a yàq ah, ci leer na lim nga na aussi. jàll mais lan ngay tontu ci ñi nga xam certainement am nañ même position que yow am ay doom euh, gis ni daal xewli ak lu métti métti am na daal loo xam ne daal jamono laaju ko donte ni tamit yàlla dimbali na la nga bokk euh, ci lekk yi la wala ci lan yi la. def xew ba raxas ak fi jamono ji nga nekk koo xam ne aussi nga nekk koo xam ne aussi référence nga certainement ci ñu bare bëree ci ci xale yi aussi. raxas bi xam nga lu ko waral. Hmm. dama tëgg Sorano teraluma samay hôtesse ma defaat euh, xew samay hôtesse jënd seeni yére matin et ñoom hôtesse bu ci nekk mun naa ne def nga presque quatre-vingt mille ci sa yére ak say accessoire waaye lu ma leen war a defal xëy la lendemain euh, ceeb bi desoon na diwlin bi desoon na lekk yi desoon na ñu jël li des defal leen ko ñaari mën a dëxin bii mbaxalu yàpp naar fandooy mi eh, mën na maa seede ndax yaayu suwaadu moo ko togg ak xadi àngale mm. waaw loolu abusé na woo Samba Jaara Mbay mu ñëw bégal leen mm. woo seng-senge mbiram géey kewe yaay Awa Jaañ ki nga xam ne mooy Alaaji Fay bégal leen est-ce que foofu abusé na xam nga lan laa mujjee def jël sama micro ku ñëw di ñaan ma ne la lañ doon maye ak lañ doon jëflante def nañ ko ca xew ma fii ñëwuñu fi pour pour man dañ may dimbale man damay dañ may jàppale warul def xew abusé waaye teral sa doom nag bu fekkee nag dañ koy aayu ci réew mi dina ma dina ma doomu autorité yi sax dañ leen di teral autorité boo fi gis xew na xew biir këram teral ay doomam teral ay njëkkeem ñëpp dem ñun teraa nga lañ xam ndax ñun ñooy sëtu Samba Gila Jéege ak Maba Jaxu Ba leer na wërsëg jaam nag yàlla xew nag liir bee ñëw rek macha allah ak wërsëgam hmm. xew nag yàlla moo koy defar ndax nit mën na préparer xew te yorul cent franc ndimbal suñ borom rek lañ am mm-hmm. ana soraano ba ma koy tëgg lu ñu wax mën na koo mënu ko ma def ko at yee ca paase mu fees ñi ne jinne yee ñëw a ren jinne yi ñëwul fi mu toll ni abusé leen jël waa kon abusé yaa ngi noonu